asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi ngi xam ne yéen a baaxoo ànd ak ñun tey nag euh, dañoo ñëw ci lu spécial ku spécial kuñ seet si muy euh, Seck xasida wala Seck ren ak sunguf tey moom lañ ñëw déplacé wu fekk ko ba këram fas yéene séq ak moom ci li nga xam ne ci lay ci lay yëngu ndax ku ne xam ne ne jamono yi yëngu-yëngu yi bëri na woote bi bëri na sunguf ak reen fu ne ñu ngi ko fay tudd waaye nag kii da koo xam doon na ko sëñ ginnaaw bi ñu la ñu ngi lay jaar waaw jërëjëf noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare te di leen jox seen wàccuwaay wi leen sëriñ bi jox ak yàlla subhaanahu wa taala noo ngi ziare bu baax di ñaanal sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général des mourides suñu borom yàggal ko fi loolu te mu wér di ko ñaanal suñu ñaari wayjur ak suñu wasila di ko ñaanal ci àdduna bi yëpp yàlla defal leen ko ci barki xaside sëñ Tuubaa yi noo ngi leen di ziare bu baax. jërëjëf euh, sëñ Seck euh, sunguf ak reen lan mooy lan moo tax sunguf ak reen Seck sunguf ak reen. waaw loolu danaa ci sawar a wax ndax euh, comme ni ko nit ñi di waxee bis bu yàlla sàkk sekk xaside sungu ak ren maanaam euh, lu nu gañe lu nu gane la man naa de ci xaside yi ci la jóge ndax ñun sunu lépp xasidaa ko yor moom ngeen nu fekk ni ñu koy jàng wax dëgg yàlla lépp lu nu am ci xaside yi sëñ Tuubaa lañu ko amee dañoo nekk ci xaside yi ba suñ borom may ñu ba may ñu féexi ngir ñu mën a toog di faj aajo comme ni ko gars yi di waxee te lépp mu ngi ci biir xaside yi ndax xaside yi moom lépp ci la nekk ismu jalaal la ci lañ jóge yàlla dogal suñu boroom defal noonu nu dem génn jàngi dem gëstu sunguf gëstu ren ba xam ko bu baax xam xaaw xam takk xam lépp ñëw di ko seqalanteeg mbooleem koo xamante ni yittewoo nga ko waaw loolu foofu lañ jóge xaside yi lañ jóge jaar ci ñëw ba fi may waxee yow nag ni ñi ngi jàng xaside yi moom noonu sunu lépp xasida la boo nu woowee ci baas woo ñu ci tànt la nga bëgg ca tànt ba daan la ko defal boo nu wooyee ngir ñu ñaanal la la nga bëgg dan kon ñaan yàlla ak yonante bi jaar ko ci xaside yi ak sëñ Tuubaa ba lépp sotti ci wàllu ñaan comme ni nga ko waxee ñu bëree bari ci wàllu las lasraar bi ni ko waxee li ñuy njëkkee mooy wàllu seet ndax euh, sekk sunguf ak reen dina seet waaw loolu defe naa ne ñi nga xamante ni jëflante naa ko ak ñoom xam nan bu baax na ma ca ma ne bi ci njëkk mooy damay wax ne mboolem ñaankat yi bari nañ ku ne mën ngaa ñaan ku ne man ngaa seet waaye man ci li ma jàpp ak li ma gis seet kenn dàquma ko ci yoon wi ñu ne man loolu laa gëm xamal dax mhm. damaa yor seet yu bari bi ci njëkk a wax mooy damay seet ci suuf damay seet ci ndox damay seet ci alxuraan damay seet ci dërëm mooy dërëm yii nga seet nii mi ngi nii tege ci taabal ji dama ciy seet mu doon loo xam ne du du xam ne dis nii daal ni ma ko mën a waxee du càgg ne ñëpp ko man xam-xam bari na waaye bokkul te yàlla dogal na ne ñun lii nu yor dañ koo xam piir tëb tëbuñu rek dugg ci maa ngi gin ci sëñ Tuubaa xaside yi képp ku nu jëflanteel ci wàllum seet mboolem loo xamante si nii yëngu nga ca wala nga mas caa nekk lu ma doon toogal nga diglu ma danaa la wax fa nga tàmbalee danaa la wax fa nga yem ci kàttanu yàlla incha allahu rabi taala waaw la may seete nag moom ku ma soxla te woo ma ca numéro ya danaa la ko wax incha allahu ndax seet yemul fenn man ngay ba seetee benn dërëm man ngay dem ba ca. Euh, ñaari junni man ngay dem ba ci ñeenti junni seet yamul fenn luñ ma sant ngir ma seete ko rek laay seete man ndax nit ki nga xam dafa ñëw seeti sekk sunguf ak ren rek kooku bu dikkee li ngay ndax ñëpp ay ñëw nga seeta leen wala am na ñoo xam dañu ñëw rek nga jëflante ak ñoom directement waaw man nag loolu du ma ko def hôpital sax boo ca demee am lu la dal bala ñu laa faj dan laa consulter man yàlla bu dogalee nga ñëw ci man ne ma dama bëgg nga ñaanal ma rek danaa la wax ne la nag seet laay njëkk a def man bu ma gisul la may ñaan bu soobee sëñ Touba Mbacke doo yóbbu sama benn garab sama làmmiñ nag am na barke macha allah danaa la ci ñaanal yàlla defal la tawféex waaye sama garab moom doo ko yóbbu moom tant que seetalu ma la ba xam la ma la war a defal nit ñi dañoo war a xam loolu it bu baax baax a baax doomu aadama da ngaa war a xam tabiam xam biddiwam jàng mun nu joom mën a xam biddiw bu wér-wér ngir su nit ñëwee ngir seet loola nga mën a jaar foofu noonu xam lay tabiam nga mën ko xoolal lu wér nga wax ko ko waaye jékki-jékki rek ñu indi la ab xaalis xamoo borom nan la ko wuutee ñëw indi la rek dama bëgg nangam nga ne ko kaay ma ñaanal la ci mën naa ko loolu sëriñ si koy def nañ ko bàyyi loolu amul benn njariñ seet mooy lu wér te boo gisul waroo wax soo gisee nag war ngaa wax waaye boo gisul waroo wax kon nañuy seetal nit ñi ba noppi soo ko jëflanteeg ñoom am na ci solo lool. jërëjëf euh, sëñ Seck ni nga ko waxee euh, fi ñu toll nii xam naa dañu njëkk ci li nga xam moo di wàllu rab ku ne xam na ne gis ne dafa lëmbe àdduna bi ndax da nga ciy waa mën naa ne dama ciy yëngu fajuma ko nag dara sax ñu bari nee nañ amul junne moo am loolu nag su ma ko waxee dana jaaxal ñu bari waaye ku gis vidéo bi boo ma laajee lu tax nga wax loolu danaa la jox ay leeral ndax man jàng naa ko gëstu naa ko te xam naa ko bu wér a wér man nag samay secret moom dama ko dul partagé ci internet bi comme ni ko gars yi defee dama lay junj rek soo ma laajee nag woo ma privé muy man ak yow danaa la wax la tax ma wax ko waaye ñu bari nee nañ rab amul jinne moo am rab ku mu jàpp dëgg dëgg dëgg dëgg doo doo fa naan ca jant bam la feeñ euh, bam la feeñee rek ca ngay loolu moom lu leer la moom beneen bi ci des mooy mën naa ne dama ci yëngu lu tax mooy damaa yor sunguf si koy saafara yaa ngi dégg baax moom junne jooju bu la fee feeñoo damaa yor sunguf sa koy saafara rab nag ñu baree baree baree baree baree bari bari rab lañ ko mën a woowee te it mën naa nekk sax borom xam-xam yi la ñu wax dëgg dëgg dëgg mooy rab du jàpp kenn jinn mooy jàppaate yor naa sunguf sa koy saafara yoo xamante ni juróom-ñaari fan nga koy sangoo mbooleem liggéey yi pare na mooy sunguf sii ma tiim man lu ma wax damay génnee firnde sunguf saa ngi nii ci sama wet soriwuma dara boo ñëwee daal dinaa la jox butéel bi wax la na nga koy def ci kàttanu yàlla ko baaxam bu la diggee dëgg dëgg dëgg jig la ñeenti at doo ko gisaat mu feeñu la moom ci kàttanu Sëñ Tuubaa waaw incha allah rabbi mu mel ne beneen bi am na ñu bëri ñu ma ko dee signalé mooy butéelu 500000 lan lan mooy butéelu téeméeri junne butéelu téeméeri junne maa ngi koy doog a dégg moom ci wàllu ñaankat yi waaw butéelu téeméeri junne de boo xoolee ci internet beeg fu mën a doon ci àdduna melnum sekkum xasida nga fay gis moo koy leeral man maa ko yor cinq cent mille francs tey jant ba ma ko defaree ñu ci baree bare baree baree bare bideel bi amut ak man weer jeex na tàkk wallaay la sim mooy ci Touba gi ñu nekk di Ndakaaru di Europe ak fu mu mën a doon càdd ne nit jóge na fa jël ko fii ci man mu doon bideel boo xam ne lu wér la da koy sangoo léegi gis firnde jama la wax ci kàttanu yàllaa ko baaxam téeméeri junni nag laa koy joxe téeméeri junni laa koy joxe bideel bi fii may waxee ak yow nii tembe tembe tembe tembe euh, liggéeyaguma ko fi mu ne nii. ndax liggéey ba daa metti te liggéey ba daanaka dana jël ñaari weer mbaa ñett xam ne kon loolu du yëfi xale du ay caaxaan ki nga xamante si nii nag yittewoo na ko te ma ci sama numéro bii na ko enregistré foo ko neex na dem ci àdduna bu ko laalee am xaalis loolu force la moom loolu amul sax xaaral ma dem te ñëw force la dangay koy laal am xaalis. ci wàllu jaaro yi gis nañ ngay ngay ngay ngay yëngu ci wàllu jaaro ak lu mel ne ay cëw ay téere loolu lool sa jaaro est-ce que coow jaaro yu bëri na léegi ci réew mi de. waaw maa ngi gis ko ne naan borom jaaro bi borom jaaro bi jaaro yi moom it bari na ay façon loolu man mi sama jaaro bopp laa xam xam naa ci daal ne sama jaaro moom wér na dama koy liggéey ci ñaari façon nag bi ci njëkk mooy dama koy liggéey ci kaaraange dama koy liggéey ci bayre am boo xam ne des dama koy liggéey ci bayre ak kaaraange ak wàllu ubbeekaay ci laa koy liggéey même xoob yi ñuy takkit noonu laa koy liggéeyee man sama jaaro waaye nag incha allahu rabi taala képp koo xam ne yittewoo na ko soo ma waxee dama naan la dama la koy xoolal ba wat la ko jox man du ko tëb ma jox la jaaro man sama mbir noonu la de ñu bari dañ naan sekk xaside mi ay bagaasam daa jafe waa xam nga lu tax mu jafe mhm. mooy ñi naxee dañoo bari tamat li ma yor daa wér dama koo doon te dama koo jànget xam ko man Samba Gorel Diouf ca kokki mooy sama maam Samba Gorel Diouf mooy sama maam du ma ragal du ma tappet lu ma wax nit mën naa caa jaaraat beneen bi ci desit mooy xam-xam dama ko wuuti ji ba am ko piir ba xam ne am naa ko du gone yii ci wàllu nopp dafa mel ne moom tam sa nopp bokkut ak noppu gars yi de. nopp bari naa ci ay façon am naa ci boo xam ne Disney 24 heures lay jàpp am boo xam ne Disney ñetti fan am boo xam ne juróom-ñaari fan am boo xam ne fukki fan dem na sax ba egg ci 40 jours sans départ ca koy noobee rek ak na nga ko bëggee man nag sama dara yombul comme ni ma ko waxee léegi ku may noobloo koo mën a doon su ma xoolee ba xam la ma la war a defal ak nan la a jàppee dinaa la ko wax bu ci amee dinaa la ko génneel waaye la lay wax moom du ko weesu ñun nag yàlla la ñuy ñaan yàlla la ñuy ñaan ci barke sëñ Touba ak xaside yi yaa ngi dégg baax képp koo xamante ni séqalante nga ñun leen lay njëkk wax mooy du nu saltige xam nga gars yi dañoo am fit danaan la jox ma xaalis bi ma defal la ko léegi mu jàpp kooka ñeme na yàlla xamul la muy wax yow miy ñaan yàlla ngay ñaan toogal yàlla may la nga jël la in shakartum la azidannakum nee na ngeen ñaan ma ma may leen ngeen sant ma ma dolli leen kon kooku war a xëccoog moom ñun ci yàlla la ñuy ñaan koo mën a doon ci àddina yoreel un milliard ñëw ci ñun boo ñëwee lan lay wax lu wér lay doon ngir boo ko déggaatee ñoo la ko waxaat tey buñ la ko waxee mën na la caa delluwaat waaye lii ma lay wax nii wàllum nopp maa ngi giñ ci sëñ Tuubaa xasida kenn sutuma ci wallaahi la sim kenn sutuma ci damay nopp ci fas damay nopp ci garab damay nopp ci sëf damay nopp ci suuf waaw ci yëpp laa commencé dafa am noob yoo xamante ne dareet la noob ak dareet loolu de musoo koo dégg moom. loolu maa ngi koy doog a dégg lu bees tàq la feneen foo ko déggaatee maa la ko wax. noob ak dareet noob ak dareet man <laughs> moom dañuy dañuy dañuy bën noo boog deret boo ko déggee mooy nopp gi nga xamante ni nit ki da koy jël jëfandikoo ko ci góor ak ci jigéen waxu malaak mu dugg ci biiram waaye bu tegee ci làmmiñam la ma ca am la ma ca bëgg lépp danaa ko am dama ne la lii sëñ bi boo ko déggaatee ci keneen sekk xasida mi la ko wax noo boog deret gaa yi gisoo mosoo dégg ko ko génne ci àddina te doo ko gisit nag xam-xam xam-xam daa bari de te bokkul gars yi nañ dem liggéey te bàyyi caaxaan yi ah, butéel yi butéel yi gis naa nga yor ay butéel mais yow dañ ne da ne sunguf ak ren mais gis naa ay ay xaatim da nga yëngu ci wàllu xaatim sol alxuraan ci laa njëkkee alxuraan ci laa njëkkee maanaam ma mën naa ko gis nga waaye sunguf nag daa gën a gaaw hmm? waaw daa gën a gaaw am na ñoo xam ne sungufa leen di jàpp am ñoo xam ne alxuraan alxuraan nit gaaw na ci kaw nga xam yoon wa nga koy jaar fépp lii fi ñu doon nii affaire bii nii tege nii lii nii lu ci baree baree bari dama ci jàngalee xam-xam ndax man élève ay élève laa ci ñoo xam ne dañuy ñëw di sàkku ci man xam-xam ngir bëgg ko am ñu ci bari bari dama leen ciy jàngal biteel yi nga gis nii moom biteelu wërsëg la ci wàllum xaalis moom it lay dox ubbeekaay la ci lay dox waaw cangaayel quinze jours la waaw mi ngi nii cangaayel 15 jours la yaa ngi dégg baax moom mii bokkut ak biteelu 500000 bi lu ndaw lii ngay gis nii bu ko xeeb barki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul jant ba nga ko laalee moom it ca ngay amee xaalis lii ma teg nii du caagin ne dama ko teg ngir wane ko liggéey jàmbur la yuy soog a pare seeni borom war koo jël si yaa ngi dégg baax moo tax ma teg ko nii te xaalis bu bari lañ ma ci fay ngir ma liggéey ko te avant ñuy jot ci sama jëbu ji ngir ma liggéey ko it am na jafe-jafe ngir yegg si ci man ndax man du ko jug rek ma wuyu du ko jug rek ma wax ak yow damay xool ba war laa defal dara defal la ko su ma la ko war ta defal daat lay bàyyi nga dem xooli keneen ndax sëriñ si bari nañ te bokkuñu waaye xamal naa ci benn affaire daal ne moom lii moom incha allah rabbi ku ko laal da nga am bayre da am xaalis bitel bii waaw ko ko laal da am bayre da nga am xaalis ci kàttu yàlla ndax euh, ci wàllu dugg xalwa ak rawat nag beneen beneen bi ñu doo dokkee ñëw dugg xal bi ak li nga xam moo di kayit ñu boole wàll ko wàllu kayit tukki bi dem ak dikk bi xalwatu moom 2 millions 500 laa koy defee sëñ loolu bëri na de moom laa koy defee man su ma génnee ba noppi lay saraxum nit ka ma gis ko ngir wax ko ko bu ko defee moom ci jëmm boppam la ma ko cay wax dana ko dana ko gis xam nit suy wax day wax te yàlla rek tax man nag maa fi man ñëpp wala maa fi gën ñëpp duma ko wax loolu ab dof moo koy def waaye la ma tollool te xam ko te man ko mën naa ko wàt ci sëñ Tuubaa xasida bu ma ko jëflanteeg nit su ma ko waxee ne ko defal nangam dana ko gis incha allah rabbi taala këyit it këyit nit ñaa ngi ciy ñaan këyit dafa am yoon. du caagéen ne nit day ñëw ne la damaa bëgg tukki rek damaa bëgg nga ñaanal ma ci kenn nga ñaanal ko ci ay waa ji nan ba loolu nanuy xool yoon yi nanuy xool nit ki nga xamante si nii moo bëgg kayit yi nanuy xool ki nga xamante si nii moo ko yittewoo nu génneel ko sarax bi nga xamante si nii moo war a aju ca yoon woowu ngir ay kayitam mën a jàppandi waaye jékki-jékki rek ñëw ci sekk xasit ne ko damaa bëgg yi kayit mën naa la cee ñaanal nangam ak nangam ñaata nga may jox lekk xaalis ba rek toog jàpp sa bopp nañuy xool ci mbir yi tey def te yàlla tax yaa ngi dégg baax yàlla tax gi weesuwul ngay xoolal nit ki lam war a def nga def loo ko ko ngir moom ci résultat bu leer nañ waaye jékki-jékki rek daan ne mën naa nangam indi xaalis ma defal la ko gars yi nan nan ragal yàlla te góor góor lu ci li ñuy def mbir mii lu baax la lu am solo lu am njëriñ la amul benn bakkaar bu ci nekk waaye bàkkaar bi ci nekk gars yi ko ci indi ngir dañuy lekk xaalisub jàmbur bloqué lekk xaalisub jàmbur tëddi nelaw lekk xaalisub jàmbur noosee ko loolu loolu fet na loolu lu ñaaw la ñu koy def nañ ko bàyyi ngir yàlla ak yonent bi ci ñama ko sañ wax waaye këyit am naa ci tegtal yu leer nañ ci ne yow mi nekk Europe nga doon góor mbaa jigéen loo mën a yor ci àdduna ak foo mën a nekk ci àddina ma jëflante ceeg yow am na ci biiteel bu ma ciy joxe bu soobee yàlla ca ngaayal juróom-ñaari fan la moom bis boo ko sangoo ci kaw cat li dañ ci yow danaa dindi sa cat defal la kaaraange ba pare soog lay ñaanal ci wàllum këyit la ca am incha allahu rabi taala tama def ko ca bitel ba boo ko jëfandikoo da nga gis résultat bi incha allah yow mi nekk fii it Sénégal ngir bëgg a tukkeet su ma xamee réew mi nga bëgg a demee danaa jaar ak yow foofu noonu ba nga kii waaye këyit daal moom am nan ci loo xam ne des ni yor nañ ko tey lu wér la loo xam ne des ni xam nañ ne jar bu nañ ko ba xam lii dalil bi ñu téye ko sunu loxo Euh, jërëjëf euh, sëñ Seck euh, ren ak sunguf comme ni ñu ko waxoon ci tàmbaliment bi xam naa ne buñ duggee ba ci biir dinañu gën a leer ay adresse am waaye bu dee fii ci Touba mu ngi nekk fi nga xam ne moom moo di guy ndaween ni ñu koy waxee ci Daaru Minam foo laate guy ndaween rek Touba dañ ko beneen bi mooy jamono ji ku ne gis na ne réew mi yëngu-yëngu yu bëri na xale yu jigéen yi ñàkk dem kër gi bëri na ni ñu koy waxee mooy borom kër jafe na leen est-ce que ñooñu tim yow sëñ Seck loolu da ciy yëngu waa xale yu jigéen ñi ci baree bari seen sëy tas ñoo ko tas. Hmm? waaw xamal dox man damaa ragal ludde damay wax. li nga xam ne waaw dëgg la xale yu jigéen ñi ci bari ñoo tas seenub sëy da ngay gis xale bu jigéen boo xam ne mineur la day bëgg a bëgg am jëkkër ngir jéem a jëflanteeg moom loolu ñuy wax ndaw dan ca moom ba tax mu dem taxawaalu ci ngir ab xaalis nan ko bàyyi loolu amul njariñ hmm. ndax dégg nga baax li ma lay wax dañuy ñëw. am seenu ndaw mu baax lool ñu maye leen nga xamante nii bu ndaw gi xasee daj moom dind nañ ko ci farata ci lañ bëgg ñu defal leen seen yooyu ñuy def waaye buñ ca jógee rek dañuy bëgg ngir dem taxawaalu ci ngir ab xaalis buñ leen jox ay dix mille ki ñaari junni te taxawaalu gi daa bari lool bari na ci ñoo xam ne dañ naan seeni goro leen tas kenn tasu leen ñoo tas seen bopp waaye ñiit ñeneen ñi ci desit ñu ci baree bari comme ni ñu koy waxee rab moo leen koy defloo mm-hmm. xanaa xamoo sëñ bi ma xamala benn affaire am na ci ñoo xam ne nii ni am jëkkër bay laayu mi diine <laughs> laay laay suñu seek lu garaaw ngay wax lu garaaw laa la wax <laughs> loolu nag mhm. ay mbir la am na ci ñoo xam ne des ci góor duñu am jabar ba ilaayu mi diine <laughs> waaw barki seexul sëñ Seck lu garaaw ngay wax de war na sëñ Tuubaa yàlla mi leen sàkk indi leen ci àddina yaa may dégg baax bu tegee programme boobu ci ñoom da leen fii teel a jëlee maay wax de yàlla mi leen fi indi bu tegee programme boobu ci ñoom xam na ñoom ñii kat duna am njaboot dun am soxna dun am dara bu dee ci jigéen la du am jëkkër yàlla da ni pro télé programme ngir ñu jóge fi ñoom ñu faatu am na ci ñoo xamante ne am nañ 40 ans mhm. ñi ngeeg seeni soxna mus ñu doom am déet man li nit di ñëw di jàmbat ne du ma am sama boroom kër doom musuma am ak moom doom dafa bari waaye nag yàlla bari na sutura am na ci ñoo xamante si bu ñëwee daar daar nga ñaana leen suñ borom defal leen ñoo am ñoo gone loolu lépp da ci am am na ñoo xam raba leen ci yow jigéen ju taxaw danga ciy danga ciy dox dama ciy dox bu baax li ma ciy doxee xobi limoo laa koy defee xobi limoo lu garaaw laa la xobi limoo lay liggéey loolu waaye nag daa lu ca lu ne ca biir loo xam ne sekk xasida rek ko mën a xam sëriñ si ñëw di ko sàkku ci man bari na am na ñu ma ko ca jox am na ñu ma ko joxut ngir lan secret daa doon lu nëbbu secret moom ban waxee secret la ca la nëbbu kon dara feeñatul ndax yaa ngi dégg baax waaye billahi lazi ak téere bii ma yor barke Seexul Xaddim mi ma yaakaar wàllum jigéen gu taxaw néew ma ci sut waaye yàlla may na ma ci ba ma xam ne may na ma ci barke sëñ Tuubaa nag laa wax bari na ci ñoo xamante ne ba ma ci jëflanteeg ñoom seeni ngénte maa ko jàng xanaa looloo gën a wér seeni ngénte maa ko jàng man wàllum jigéen ju taxaw awuma ca nawle tey bu ñu doon wër sëñ Seck xëy na adresse am Touba ndax da ngaa faral danga am da nga am yeneen bërëb yoo xam da nga koy faral di di di di ñaane wala nga fay joxe ay rendez-vous. waaw man nag bu fekkee ne Touba gii la maa ngi Daaru Minam guy Ndewen comme ni ko waxee mooy sama adresse bu fekkee ne Dakar la maa ngi golfu ci terrain basket bi rek boori kër Balla Gaye numéro 2 maa ngi leen di ñoom ñëpp waa Dakar bu fekkee ne ci bi la maa ngi nekk ci côté Touba Fall rek soriwu ma ko dara booy bëgg a dugg Touba Fall lu ci bari bari fa lay nekk ci kër googu noonu nga xamante ne fa laay nekk ci àll bi ci wàllu liggéey yi nan ngay jëflanteeg ñi nga xam ne ñoo nekk ci biti ci wàllu CP yi wala nan ngay jëflanteeg Modou Modou yi nga xam ne ñoom ñu ngi ci biti ci wàllu ñaan wala ku bëgg a jokkoo ak yow. waaw man de CP bu amut am réew rek laa amagut am naa numéro CP yëpp ndax réew yu ci bëree bëri samay ñaan dem na fa barki sëñ Touba nag laa wax xam nga nit suy wax day wax dëgg te yàlla tax ma sayid na ilaa ma alim man yëpp ñu ci bëree bëri maa ngi seen numéro xam naa leen baax ci réew moo yaakaar nag am naa GP ndax yaa may dégg bu baax te man li ëpp ci li may jëflanteel ñooñu nekk ci kaw la ñoo ñu ñuy wax moodu moodu yi ndax la nga xamante si ni mooy mosali ak ñamal yi dama koo xam sama digganteek ñoom te dama leen koy defal ñoom ñuy mos waaye nag ñoom it dama ñamal nit ñu baax lan sëriñ bu leen nax da xamul rek waaye ñoom moodu moodu yi nga xamante ni ñoo ne ca kaw boo leen defalee ñu gis lu ne mën na la koo defal ci àddina waaye da gis ab moodu moodu ne ca kaw di liggéey di dang-dangi ngir indil ak njabootam mu gis ab sëriñ génn ci internet bi rek karkaasam baax yaa ngi dégg baax sant ko dara mu ne ko nangam laa koy defee yàlla dogal mu jox ko xaalis ba kooko boloke ko jëndee ko jasneer sol wala mu demee ko ndakaaru noosee ko wala bu jëndee ko oto mbaa mu tabaxee ko yooyu amul solo te ñoom ñi nga xam ne des yoon na ca réew ma dañuy dañuy dañuy dañuy góorgóorlu ngir sonn barke alxuraanu karim kon yow mi nga xam ne des ni gis na la am ci yow yaakaar bul tas seen yaakaar di jël seenu xaalis te doo leen defal dara te ñoom ku leen defal ñu gis maa ngi giñ ci sëñ Tuubaa bu ñu la waxee 1 million man nan la caa dolli yeneen 2 millions barki alxuraanu karim jox la ko man tax moo tax moodu moodu yëpp samay xarit lañ man man naa ne ñi may jëflanteel Sénégal gi bëriwut man lépp ñi may jëflanteel ay moodu moodu la ci wàllu ndombo ndax yooyu dañ ci dox gars yi naan ndombo bi boo ko am boo ko takkee doo def lii rawat na ñi ñuy tukki ndombo ak yooyu xeeti ndombo ak cangaay cangaay yi cangaay itam dafa mel ne gis naa ngay ngay faral de bëri ay ndaa ay xeetu ndaa bari le naa ko lool ndombo goo xam ne des nii li ñuy tere li ñuy tere maanaam ci ngay yëngu te ba a raw am naa ndomba googu man. Ah? junj nag doy na borom xel. bu fekkee ne ndomba goo xamante si nii ci wàllum jiitu wala nga raw ña nga nekkal bu ko téeméeri nit newoon yow képp nga am fa ndomba googu maa ngi gin ci sëñ Tuubaa lu ñuy séddale yow lañ ciy njëkk a sédd lu ñuy lañ ciy njëkk a jox. ku ñuy tuddit yow la ñuy jëkk tudd incha allahu rabi taala am naa ndomb gi ñeenti gaaw lay doon maa koy liggéeyal sama bopp man déw ma ci kenn naan ko liggéeyal ma man lu may liggéey maa koy liggéeyal sama bopp yaa ngi dégg baax am naa ndomba gi bu dee cangaay yi wàllum cat rab comme ni ko gaa yi di waxee ak mbirum seytaane ak mbirum ubbeekaay yépp am naa ko. ak ku liggéey comme léegi loolu daa dama koy toj ba ah. mu dañ ca la ma koy liggéey ci genn mat la ne mi ngi ci bagage yi duma ko génnee am na fan yee ku wax ba ma génnee ko waaye loolu daanaka comme ni ñu ko waxee rek at ba at laa koy génnee wala sax du génn ci mi bant boobu ma lay wax ci armeel ci lay sax. waxuma nag ci bàmmeel xam nga nit ñi sooy wax da ngay génne lu leen naññ nga teg ko ci seen kanam xam nga fi mu toll nii mën naa ne ci armeel lay sax rek am ku dégg loolu daal jege daan ay waaj yi bàmmeelub jàmbur nangam ak nangam saxut ci bàmmeel ci armeel lay sax ndax garab day sax ci armeel day sax ci lu dul armeel am rat la ka koy dagg séeréer lay doon ca ndey ci bàyyi juróom-ñaari maamam yëpp ay séeréer la ñuy doon man maa fay ban jox ma ko maa ko am ci lay tojee liggéey ku ma gis sa sa liggéey bari ci yow su ma la ko joxee barke Serigne Touba xasida nga tàggoog moom ak ku mën a doon ak ku la mën a liggéey nag laa wax man Seck xasida maay wax yii ma lay wax yëpp boo ko déggaatee maa la ko wax. tey boo ñu ku tey ku bëggoon a ko ak suñu Seck xasida numéro téléphone yan numéro lañ la mën a jot. waaw da nga may jot ci 77 489 04 66 77 489 04 66 wala nga jot ma ci 76. 394 63 60 76 394 63 60 waaye sëñ bi dama laa bëgg a leeral ci lii. waaw gis naa ay téere yu ndaw de. dama la ciy leeral waaw. xam naa nit ñi ñu ngi may yàkkamti ngir ma liggéey ak ñoom xam naa dañuy dagg émission bi bu ma leeralee lii ba noppi rek dégg nga. ñu nekkaat ci lenn gis nga téere bi ngay seen bii. waaw mooy falu. <laughs> mooy falu. waaw xam nga luy falu. ci loo mën a nekk rek moo xam ngay politicien moo xam ngay mbërum lam moo xam ngay jànkatu xasida moo xam ngay artiste comédien ak lu mën doon falu falu rek falu ca la nga ne rek doon waa toog ca donkaase ka très bien noonu lay demee téere bii maa koy liggéey ci sama loxo bopp alxuraan la ku ma ko mën a jox bu ci soobee nekkut la ma la jox da nga ko gis waaye bu ci soobee nekkee sama néewutu ci mënatuma ca dara ndax dégg nga bu baax téere bii mooy falu gi bu fekkee bant yii la bant yi day alak sab noonu kon dañuy kon dañuy soxla bant yi bëri na jamono ji. waaw day alab sam noonu barki sëñ Touba da koy alak tey jii boo bu ma la ko jatalee ba jox la ko. Mhm. nga bomboo ko ci sa bëñ yi sa ñaari bëñ yi képp laala wax bu fekkoon ne tey jii yow mi yor micro bi samam noonu nga jataay boo mën a nekk ci àdduna bi ma ne asalaamaaleykum da ngay rombanteeg man. maa ngi ciy liggéey beneen beneen côté it mooy élèves yi nga xam ne des ni dañuy jàng te bëgg bac wala ñu bëgg BFEM wala ñu bëgg a ci njàng mi dama leen ciy liggéey loo xamante ni ñoom it bis bu yàlla dogalee mu nekk seen gémmiñ ñoom it ci kàttanu yàlla wala bu ñuy génn seen kër ñu bombo ko def ko ci seen poos wala ci seenub saak ci kàttanu yàlla bu ñu demee concours bu ñuy def ñoo jël paie ba deux moom. loolu mu dama koy liggéey maa la ko wax kay mooy élèves yi nga xam ne ñu ngi ci école yi di def genre yu mel loolu waaw waaye daal xamal naa la ci benn affaire fii moom lu wéer fi ne. mooy sunguf yi ak ñoom yëpp yëpp mi ngi lépp sama liggéey la. lii donc samay bagage nag da ngeen maa fekk tey fi muy recevoir rek moom noonu la demee waaye leneen lu waay mën a bëgg suñ ci jokkoo bu soobee yàlla bu ma la ko fajalee wut fii danaa la yóbbu ci àll ba foofu moom bu ma fa duggee moo wax ja jeex na. mooy mooy fa ndaayee nekk. fa ndaayee fa bagaase ne bu fa duggee jeex na luy cat fa nga koy bàyyi luy ab liggéey fa laa koy tojee luy xeetu xéewal it fa laa la koy joxee nga dem yóbbu foo fu la neex demal bu la neexee defal yaramu neen kaaraange moom danga ko bari moom bu la neexee defal yaramu neen dugg ci marché yi. di tooñ tul it dama koy liggéey waaw tul ak ndëmbal weñ dama koy liggéey yor naa ci bagage yu doy waar yoo xamante ne nii loolu gaa yi naan kii waaye fas faxas loolu gaa yi naan faxas amut ku leen ko wax da leen ni nax man maa ko wax man sekk jar bu naa ko ba xam ko faxas amut mooy paaka bi nga xamante ni gaa yi dañuy def nii rek mu damm loolu amut nekkut gaa yi dañ koy damm ba as cat des ci boo ko laalee rek mu topp la noonu la ko gaa yi defee tul nag moom wér na moom paaka du dugg jaasi du dugg loolu ma am naa ko yow xam-xam yu garaaw yi ngay wax nii yëpp compli garaaw na de. damaa bokkut ak gars yi damaa dem gëstu ji ba xam man tëdduma rek di nelaw damaa dem gëstu ji ci bi ba xam soog a ñëw exploité lii ma yor. te loolu dafa ànd ak jàng xaside bi def teewul nag la woo ci tànt bu ma. fii may waxee yow nii maa ngi ak jàmbur yoo xam ne seeni i lekk naa ko maa leen war a jàngale seeni i guddi yàq ma dara ci li may def léeg-léeg da ngay gis waaye nag naa la xamal benn affaire ñaankat yi ni ñu baree ñaankat yi ni ñu baree noonu la jaaykat yi bare ci marché bi waaye kenn ku ci ne wékk fa nga wóolu dénkaane kala doy ndax dégg nga baax li ma la wax xool leen ñi man ñu ñaan lool leen xool leen ñi man ñu jàngu loolu leen ci ñaar yëpp ci laa nekk ci laay wax sañu ma wax ci leneen lu dul loolu du ma wax ci politique du ma wax ci wàllum ay musique ak xeet yu mel ni sama yónni wu ci waaye nag sañ naa ñaan ci réew mi jàmm yàlla defal leen ko kon yàlla nañu ko yàlla boole ci barke sëñ Tuubaa xasida yi tey xam naa du ñàkk nga may gars yi seetaan benn secret boo xam ne ni jamono ji réew mi tolluwaayu doy na waar de benn secret boo xam ne nit ñi di xëy di ko def di ko laal wala ñu xëy di ko tudd salaatu ala nabi mën na lu ne salaatu ala nabi mën na lu ne danaa ci joxe benn boo xam ne des nii téeméer ak fanweer laa lay doon rek ñu def ko allahuma salli ala sayyidina muhammadi alfatihi lima uqliqa wal xaatimi lima sabaxa naazil xaq bil xaq wal haadi ila ziratika al mustaqim wa ala alihi xaq wa téeméer ak fanweer soo ci noppee nga def alam nasrah laka sadrak wa wadaxnaa anka wisrak allazi anqada zarak wa rafanaa lak sikrak fa inna maal usri yusran inna maal usri yusran fa isa faraxta fansab wa ilaa rabbika farxab nga def ko tamit onze fois moom it yaa ngi dégg waxtu woo xëyee bala ngaa def dara nga def ko ci kàttanu yàlla jant booba insha allahu rabbi xaalis bu baree dana la gane si ci kàttanu yàlla allahuma salli ala sayyidina muhammad alfatih loolu mën na lu ne ci àddina alam nasara day yokku wërsëg boo ko defee suñ borom mën na laa suturaal defal la taw fex incha allah ba lépp ñëw. suñ sekk maa ma suñ sekk yow xam-xam yi ngay wax nii man nag am na ci bëri xam tey man ba man maa ngi yàgg na maa dox nag tey lii ma dégg fi garaanu waaye xanaa ku ñëw ci yow dina yor xaalis bëri de. waaw wax dëgg yàlla ndax man mii dama joxe xaalis bu bari ngir am xam-xam mbir kala ko yombal moo la nax dara xëyul xëy sotti benn boo gis ci àddina ñaara cay topp ñaar boo gis ñett a cay topp ba keroog suñ borom dogal téeméer deeg si sa jëmm man nag lii ma yor dama ko jënd ñu jaayee ma ko lu seer kon su ma ñëwee yombal ko nit ñi rek la ma yor du dëgg la ma yor wérut man du ma ñaanal gone boo déggee may la du ma ñaanal gone danga may fay xaalis bu weex tar ma ñaanal la waaw noonu la demee ndax lii ma yor maa ngi giñ ci sëñ Tuubaa xasile dama ko xam dama ko man te ginnaaw bu yàlla jàlle yonent bi ak sëñ Tuba xasida yi nag ci laay waxee man sama sama lépp génnut xasida comme ni ma ko tàmbalee rek noonu laa ko yeggalee xasida laay tàmbalee ci laay yem su ma demee ba leer man naññ ne sungu fag ren gii nan naa yàq dara sama diggante xasida yi ma ba fi sungu fag ren jàpp xasida yi ndax xasida yi njëkk ci man loolu it bëgg naa ñëpp bàyyi ko xel ci man barki sëñ Tuba xasida yi bu ma demee ba nga xamante ni benn jafe-jafe nar naa am sama digganteeg xasida ma ba loolu jàpp xaside yi ndax xaside ma defal lépp lu ma am xaside ma ko defal barke sëñ Tuubaa xaside yi kon yàlla na ñëpp am jàmm ci barke wakaana xaqan jërëjëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéenay bàyyi xel comme ni ñu ko waxoon rek fa la ñuy delluwaat tey dañoo ñëwoon seeti spécial si ki nga xam moo di Seck ren ak sunguf mu nekk fii ci Touba euh, Daaru Minam quartier Guy Ndaween comme ni mu ko waxee duma ci commentaire yéen a ko dégg yéen a ko gis ndax lu ne fànken du ko jeex ndax li mu wax ni tey xam-xam yu leer naññ la ci ay engagement la ay engagement la ci jël nag kon nag numéro yaa ngi noonu képp koo xam ne soxla na ko rek boo ko contacter rek dina la wax nu ngeen ma def ba jëflante ak moom leen jox dig daje wala suñu sekk daa am loo ci bëgg a yokk waaw xanaa di santaat yàlla rek di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi damaa fàttee wax ne am na ay lam yu may joxe ay lam lam yoo xam ne des ne bayra njaay la bayra jigéen la ñaareel ba ma koy jox dama la koy wax am na ci ñoo xam ne dis nii dama leen koy jox ñuy tërërër yi ba am doom joo xam ne takkuñu seen yaay ndax lami bayra ba daa foor ku ma koy jox dama lay wax lii ci ne mu doon lu wér am na sama ngóor soo xam ne dis bi ma ko joxee moom fanee jàll damaa woo ba mu ñëw mu ne ma sëñ bi lii damm naa ko sànni ndax man bayra bi ci nekk at duma ko tey fu ne ngi fay dugg ngir di jëflanteeg jigéen ñi man dama lay wax li leer bayra jigéen la bayra njaay la poqet la waaw lam yu doy waar la yoo xam ne dis nii mi ngi toj àdduna bi fii nga koy takk bañul sobe bañul dara booy sangook loo mën a def booy séqalante jigéen ak sa soxnaa ko mën doon danga koy takk waaye dama la cay wax la ca nekk ba bayre bu wér kéng la boo xamante ne du ay caaxaan. moom lam waaw. lam baa ngi lam lam bi toj mi ngi toj réew mi. mi mi li ci baree bare bari artistes yi jox naa leen ko mbëri làmb yi ñëpp laa ko jox ku ko yittewoo daal ba mu woowee moom bu soobee yàlla ma defaral la. da nga bëri da nga bëri gan ñu bees ci lam bi de. Ah,